doore ko nag eh, ci maladie tëdd ci hôpitaux yi ak ñi weyale seen i jàngoro yal na yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen waaye way dawlu itam ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bakkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa diine yëpp ñu nuyu leen ziyaar leen ñaanal leen yàlla yàggal leen fi eh, kilifa aada itam naka noonu yàlla defal leen jàmm sutura xéwal sottal projet yi def déggoo seen diggante askan wi waaye def itam déggoo ki seen digganteeg euh, ku jegi yëpp waa biir réew mi yëpp ñu nuyu leen ziyaar leen ñaanal leen jàmm sutura ak xéewal waaye itam ñaanal ko mbokk yi nga xamante ni taamu nañu génn ñu ñaan rek yàlla na yàlla jàppale leen ba seen yaakaar bañ a tas ca la leen tax a génn yàlla na yàlla def itam gise waat ci njaboot gi gannaaw bu yàlla defee jàmm ci réew yi ñu nekk ndax jaboot jàmmay mbokkam te boo nekkee ci réew moo xamante ni amul jàmm ci ngay xam ne rek nit ki jàmm rek moo ko jig kon yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi nga xamante ni mooy réew yi àddina bi yëpp yàlla def itam ñi nga xamante ni ñoo réer yal leen yàlla niit yàlla delloo siwaat leen ci seen i mbokk rawatina sunu bébé boobu nga xamante ni moom la ñuy wax bébé euh, Cheikh Ibra Thian dëkk fa la ci diwaanu Yoff te démb euh, bala ma kee sori sax damay baalu ak téléspectateurs yi bu baax a baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla démb amul ku ma wowul te jooyoo am na ci ñoo xamante ni sax mooy sama toogandoo bi dinaa ci ñëw dafa dem ba jëlee ci bët buy metti ba tax mu làqu nii ci ruq bi wàcce catu musóor gi waaye nee naa ko wàcce catu musóor man maa ko moom keneen moomu ko donc euh, dinañ ci ñëw incha allahu taala di xaarandi itam euh, ki nga xamante ni moom moo am habitude di tardé muy sangomar nga xam ni moom tardé rekk ay mbiram euh, ñu ngi koy xaar xaw ma Pape Sidi Fall moo dugg ci plateau bi di ma perturbé am déet waaye daal ànd ak lu mën a xew <laughs> bàyyi naa ko yàlla ndax Pape Sidi moom defe naa ne xale yëpp dañ naan yaay mais moom may kalam maay doomu bàjjanam waaye baax na euh, mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax xam naa li may def ba may bàyyi rama mu nuyoo euh, muy docteur kër gi su ko defee ñu fas yéene ànd waxtaan wi le temps que Sangomar di ñëw ñu kaleel ñu itam suñu élément bu fekkee yemb na ndax ñoom itam ci seen groupe bi dafa am tiisu leen dal dal Sénégal dal képp koo xamante ni rek daan nga seetaan trop bi nga xamante ni mooy troupe bu buur géwal kon Rama bàyyi la nga nuyoo mbokki téléspectateurs yi laataa ñuy ubbi téléphone yu xuus ci waxtaan wi. waaw Adja Mbayang asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu. di la ziara di nuyu téléspectateurs yëpp. yu 2 maa ngi leen di nuyu di nuyu sama famille. du nuyu ñëpp wax dëgg yàlla li ni nga ni nga ko waxee rek sama bët sax nee naa ci loolu la jóge ndax sa kiiwu démb bi muy lu doy waar di lu metti di lu metti mm. may euh, kii yaayam bu baax a baax mm. di ko wax ni ko yàlla na ko yàlla may xolu muñ te yàlla na ko yàlla niital ci barke salaatul faatiha parce que metti na mm-hmm. bu doon fukki doom sax mm-hmm. ñu ñu ca coppet benn yóbbu mm-hmm. te te yàlla jëlu ko. Mm-hmm. sax day metti dëgg la rawatina muy benn doom kese kon yàlla na ko yàlla nit. amin amin amin amin di nuyu ñëpp nag di nuyu waa déggoo comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. ñu am nag naxaar nag. Mm-hmm. ñu am naqar naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax macha allah ki nga xamante ni si moo wàññeeku nekk bokk ci suñu group di maam ngeer. Mm-hmm. di waaw Ousmane nañu woon photo yi mm-hmm. euh, maam Nguer ñu rappelé ko nit ñi mm-hmm. euh, euh, laata ma bàyyi la rek nga commenté ci kawam waaw maam Nguer di ku baax di ku yiw ku bëgg troupe déggoo ku bëggoon troupe déggoo avancé ndeysaan macha allah xoolal soxna Mbayang dafa am fi mu ne lu ñuy préparé nii wallahi dafa ñëwoon valise am ba teg dëgg la ni Fat Gueye sama mag ni ko dee maman Janti waaw ni ko dee rek moo ñuy tàqale ndeysaan lépp loo dégg mm-hmm. waxuma mm-hmm. defuma mm-hmm. maa ngi sa gannaaw te fekk maa ngi dund beneen euh, caméra duma tiim bu dul bu turub déggoo ndeysaan muy ku baax ñu fàttali euh, am na benn euh, théâtre boo xamante ni maman Gentille daf ci joué woon nekk koo xamante ni yàlla dénk ko dara mais sëram yàlla may ko mu am maman jante bi muy dem ca marché ba di jënd ay yaabooy ak yooyu maam ngeer moom moo ko doon jaay jën wallaay moo ko doon jaay ci lu ma fàttaliku ci ay théâtre am ba bii passé suñu bu mujj bii rek mhm. bu mujj bii mhm. moom moo ci jël moo ci doon sëy ak buur géwél jël doomu buur géwél mhm. daal di ko koy mayaat comme jànk la ci biir kër gi waaw mu jël ko ko ni ko dama la koy may mu doon sa ñaareel ndax amuñu doom boobu génn gul xanaa si boobu génn na boobu génn na ndeysaan Euh, mooy Sophie Enas bi. ah Sophie Enas. Sophie Enas boobu génn moom moo ci doon wujjee ak euh, Nasira. moom moo ci doon wujjee ak Mama Sophie. Mama Sophie waaw. wax dëgg yàlla troupe déggoo yëpp am naqar muy ku baax ndeysaan da di liggéey dafa mënta ñàkk rek waaye kon sax fii doonu fi toog ndax dañoo dafa fort ci ñun dëgg la wallaay dafa fort ci ñun mm-hmm. maman genti nag yabal ma ak buur géwél ni ma waxal ma loo mën waxal mm-hmm. loo mën defal ndax ki jóge ci ñun ku foor la ci ñun dëgg la di ko jaale ay mbokkam dëgg la di ko jaale Bourguéwel di ko jaale troupe déggoo yëpp di ko jaale Sénégal yëpp di ñaan yàlla benn doomam boobu nga xamante ni si moom la fi suñu borom bàyyi mm. yal na ci yàlla teg loxo amin amin amin benn doom bu góor rek la am ah, benn doom bu góor la am yal na ci yàlla teg loxo ci barke salaatul faatiha ndeysaan ñoo ngi ko koy ñaanal bu baax maa ngi lay ne la daf may sama benn grande sœur boo xamante ni dafa mm-hmm. génn àddina mm-hmm. Euh, yaayu sama taaw bu jigéen ba maaw faal nga xam ne la jëluma benn yoon ba ma may ko boroom kër mhm. euh, yàlla dafa def maam ngeer moom boo xoolee regardam mhm. ak euh, regardu sama sœur boobu dañu nuroo regard lool ma ne dafa am ay nit ñoo xamante ni duñu nitu àdduna mais bala ñu leen a xam rek dañ ñoo wan ginnaaw mhm. xam naa Pape Ousmane dinañu wan après photo yi ndax mi ngi ci su ko defee ñu fàttali nit ñi mhm. maam Ngeer moom nga xamante ni da daan bégal nit ñi ci wàllu théâtre mhm. te yàlla dogal itam euh, mu bàyyi koo fi mhm. ñuy ñaan fa mu jëm yàlla na ko gënal euh, fi mu jógee euh, doom jëm fi bàyyi yàlla na yàlla teg ci moom loxo musut ndeyam ja aw fante de sa barke ba amiin waaye di ko jaale waa groupe déggooy yëpp di ñaan yàlla na leen yàlla may xolu muñ amiin surtout nag faatu Gueye mi nga xamante ni mooy soxnaas buur géwal ñu di ko wax mhm. maman Gentil mhm. daanaka Fatou Gueye gi sax nit ñi xamuñu ko maman Gentil lañ ñu bari xam ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax àndandoom boobu xaritam mhm. waaye liggéeyandoom di ko masaw di wax ne àddina nii la rek demal maa ngi ñëw la li fi metti yëpp euh, dafa bari xam naa Ousmane bu photo bi pare nga def ñu signe pour ñu fàttali ko mbokki téléspectateurs yi waaye dinañu delloo si waat tuuti ci li nga xamante ni moom moo am ndax euh, euh, ba sunu tey nit ñaa ngi laajte ndax euh, ki nga xamante ni moom mooy xale boobu ndax feeñ na am déet mm-hmm. waaye diggante démb bi ñu ko fi jàllaleeg tey mm-hmm. euh, lu ne gis nañu ko lu ne dégg nañu ko mm-hmm. euh, bu fekkee élément bi yemb na dinañ ci dellusiwaat ndax après dañu jël yaayam pour rappel di ko rappelé waat nit ñi am na yeneen élément réer yu bizarre yoo xamante ni am nañ ko moo tax ba semaine prochaine bi yëpp dañ koy jël jagleel ko loolu ndax jëkkër day fote jabar day fote léeg réer yi am yu ci yu ci dugg ci biir yoo xam ni mhm. dinaa leen ci kalal un à un bu ci nekk def naa ni am naa ci trois éléments mhm. yu ci nekk na xaw a doy waaye bii daf ci doon loo xamante ni ci joni joni bi la mhm. mu metti lool nekk itam loo xamante ni euh, jaaxal na famille bi waaye nag balaa may sori damay remercier bu baax a baax population sénégalaise ku munul ñaan yaa ngi xool ku mën a ñaan nga woo ma yebal ma fa wallaay munuma lim ñëpp Uh-huh. man gis naa démb ba gis koo xamante ni yëkkati na xaalisam yónnee. Uh-huh. pour ñu seet affaire xale bi. Uh-huh. ba pare daf ma jëkkawoo ne ma maa ngi mbuur te comme dañu ciblé ne xale bi mbuur la nekk. man ak sama xarit dañuy engagé wu kër gu nekk ñu jéem fa def. ay ay gëstu maanaam dugg di wut liggéey pour xool ba xam ndax exactement xale bi fi la nekk mu ci ginnaaw gi bi leen kooku seetalee wax leen ne leen su ngeen ma joxee seize mille cinq cent xaw ma dix-sept mille mu ne ma ñun pare nañ pour joxe ko dinañ ko joxe pour xale bi feeñ. donc Sénégal euh, bu ñu waxee ne Sénégal léegi. dafa dafa tax ñëpp war a tiit. Mhm. Sénégal dafa tax li fi nekk ci ñaawteef am na ñu baax. Mhm. de pour cent des sénégalais. Mhm. ñu baax lañu. bu ñu déggee lu naqari de gis nga yaa ngi wax sa bët. mais man pour man wax sax dafa ma jafe ndax démb. damay wax ci téléphone midi ba 19 heures bi ñuy julli timis. damay wax midi ba 19h. parce que mhm. bëgguma woon a tëj téléphone bi. ku gis xale bi ooma oh te du ma jot. Mhm. ku ci am tegteel bu baax ooma oh te du ma jot. Mhm. donc lépp laa doon recevoir di ci coordonné ak ay parents seeni parents. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp. ñi nga xamante ni ñu ngi bëggati ñu am ndam ci lii nga xamante ni mooy réeru xale bi. yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi ñu ngi ciy am yaakaar nag. daf ci am yu wax yoo xamante ni xëy na doo ci sori. waaye daal yaakaar mën naa am. affaire bi sot sotoo la. affaire bi. du yomb sot sotoo la ngalawaay ki yor xale bi bu bëggee lu ko noppal man de barke salaatul fatiha billaahi wallaahi tallaahi man koy waat bu ñëwoon ba ci man ne ma xale baa ngi nii dellool ma ko ndànk ci sutura mhm. dinaa jëlaat xale bi delloo ko ci sutura ndax mhm. li ñuy dem dem police li ñuy dem dem gendarmerie dëgg la li ñuy dem dem fu nekk li ñuy mhm. yitteel du dara lu dul xale bi yaayam téewaat ko kese moo ñu yitteel du tëj ko kaso du sànk ko nii dara def na lu ñaaw mook boroomam la ngir yàlla ak yonente bi maa la ko giñal ci barke yonent bi mhm. laqul rek ñëw ne ma xale baa ngi nii mhm. waxuma nag woo ma téléphone ne ma kaay jël xale bi dew ma fenn waaw am na sax mën naa am boo ko waxee ne ma woo ma ma foo nekk ma fekk la fa jël xale bi mhm. dina am keneen ku la woo dëgg la nga déplacé wu ba yegg naka su dul noonu deew ma fenn waaye daal bu ko bëggee am naa sutura su tol ni billaahi wallaahi tallaahi bu indee xale bi man dinaa ko jël te du ma mës na diw la ba delloo ko ay mbokkam ndax yàgg naa ko dund rama ma bàyyi la nga def ci tuuti commentaire bu ñëwee nga laaj ko lu bu ñëwee it nga laaj ko lu mu ci jublu woon bu ci jubloo bëgg doom mhm. xam nga démb wax naa ko fi nit ñi di ma reetaan fu muy jëlee doom ba may ko mhm. wallahi azim maa ngi am ay xale yu jigéen yoo xam ni ëmbal nañu leen xamuñu ku leen ëmbal mhm. ñu bëgg sànni doom ya ngay jël sa xaalis nii nii am naa ci kenn ak gul ngay jël sa xaalis di ko jox échographie ordonnance garab pour bu wasinee ma téye bu ko ci tolloo noonu ba toll ko ci noonu wallahi asim bu ñëwee taxaw ci man ne ma doom jaa ngi doom laa bëgg moo ma dugal ci lii ma jël doom jooja jox ko bu ko yàlla defalee jàmm billaahi wallahi taalaa dëgg la rawal gëm naa la mm-hmm. <laughs> gëm naa la bu baax a baax dafa metti xam nga dañ dañu Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mm-hmm. looloo waral population bi ñëpp jóg pour jàppale kii nga xamante ne si mooy yaay xale bi dëgg la pour nu mu jote ci doomam mm-hmm. waaye ku sa yàpp bopp réere da ngay làmb sam kaan dëgg la ndax suñu Sénégal gi mm-hmm. mën naa ne mm. ñi fi seen mbubbu fooyooy mm. ñu ci bari seeni doom ñi ngi réer wala seeni boroom kër di réer wala seeni ndey di réer ñi seen mbubb fooyooy ñi seen mbubb oyof lu tax ñi ngi réer duñ leen gis lu tax loolu moo ma jaaxal ci laa jëm mm. ku ci am garaat tey ji borom ku ci sa doom réer 24 heures. Mm. dinañ ko jéem a trouver xool fu mu ne. wax nga dëgg de. xam nga. dëgg neexul. xam nga dëgg neexul te dëgg du rombi noonu dëgg neexul. billahi ñi nga xam ni seeni mbubb dafa oyof laa la wax ñu ci bari seeni borom kër réer nañu. wala seeni ñi seen loxo guddul. waaw. Mm-hmm. wala seeni doom. Mm. te mënuñu caa jot. dëgg la. ci maaman yi la ñuy dem. sonn lool. ñu lekk leen ba mujj gi dañuy bàyyi. waaw waaye ñi for garaat. bu seen doom réeree tey du am 48 heures te seeni doom dellu suut seeni loxo kon état senegal nañ ñu jàppale xam ne nag mbaam gàtt na waaye ci jur gi jur gi la nañ ñu jàppale bu baax a baax a baax rama dégg naa dégg de gis nga kii Ebola te duggoon fii rëcc dugg fi waaw ñu ñu wax ko muy benn nit mu mënoon a réer Sénégal waaw mu mënoon a réer Sénégal keroog bañ ko waree wër dañ koo wër ba seppi ko xool ca kër ga mu jóge ñu seppi ko fa kon nañu xool ci lii ndax lu metti la ba te bari ndax biir ak wasin dafa metti mhm. jafte rek dafa metti surtout nga toog ay at fu ne nga faju fa pour am doom amoo doom gis nga démb nee naa la moo yokk sama bët bii di metti mhm. nar woon a xëy si de dëgg la wallahi azim mais dama ni damay ñëw jàkkaarloo ak ak ak askan wi état état déglu ko waaye jàkkaarloo ak état nag ñu jàppale ñu bu baax a baax mhm. nañ ñu jàppale. dëgg la ñu seen doom di réer fexee feeñ. Mm. ñu seeni i borom kër di dem fexee feeñ. Mm. am na ci ndaw soo xamante ni si nee na borom këram dafa dem julli euh, kii wi entraînement la dem. Mm. ci géej ga. ba tey ba ñu ñëwee dañoo fekk ñu sumi ay yéreem jug ko fa jël kii bi yóbbu ñu ne otoo ko yóbbu ba tey ba sànk. ba nii barke yonent bi ba tey ba sànk moo wax ci ñam ak sama sama sama nopp. ba léegi gisul jëkkër ba léegi gisul jëkkër ba mu wuti keneen déggul jëkkër ñaata at ñaari at ñetti at ñeenti at amaatul keneen ba tey ni day toog rek di xaar doom ja nga xamante ne si moom la fa jëkkër ja bàyyi woon ba léegi doom jooju nekk na grand man am na mère boo xamante ni te fu ne foora la nekk foraa waaw doomam bu góor daan jël ay nag di rey jiite foora bu jàmm gën bii mhm. nekk ko ku yàlla may koo xamante ni njabootam yëpp moom la ñu yaakaar mhm. doomam eh, doomam jooju doom ji mu fi bàyyi woon muy nàmp mhm. tey bu ma gisoon jëkkër mën naa koo may ndax tollu na ki sëy xoola loolu te kenn xamul lu ko yóbbu lan la kenn xamul yow dangay xool ci kaawu Aida Yacine wax nañ ko fi ba daanu ñaata at Aida Yacine ñaata at muy muy lu doy lu yéeme lu doy waar doy waar lu yéeme te nag eh, gis nga xale bi dañu wax ne yóbbu nañ ay photom aéroport ak ci frontière yeeg yooyu bu fekkente ne dañ ko fay jéem a jàllale mais gis nga ki bokk doomam war a tukki. Mhm. aéroport. Mhm. wutal ko kayit yu baax yu wóor. mënoo fexe fexe ba di jàll. wallaahi xale bi nañu jël ay am def ko ci système bi. Mhm. système ordinateur yi bu ñu taxawee bu ñu ko photo rek xam ne xale bii mu ngi waaj a génn frontière bi. c'est facile. te du leen wàññi dara système bi rek lañ koy dugal. taf ah. photo wàññi kii wut de mënu ci dara de seen i kër ñu ngi may dégg. aussi am na benn xale boo xamante ne. ku am doom bu tudd Elage mhm. bi muy réer booba am na mu ngi am cinq mhm. léegi tollu na ci treize ans hmm? mi ngi ci benn place man xam naa place bi mu nekk fàttalikuwul nag turu yaayam fàttalikuwul it turu papaam xam nga boo amee cinq réer mhm. génn ñu yóbbu la ci benn kër denc la fa dañ ko fa denc ci kër gi dañ ko doon bañ ko ko foto affaire bi circuit la topp ba yegsi ci man dañ doon bañ ko ko photo mm-hmm. fexe nañ ba foto xale bi dinaa leen indil photo xale bi mais daal ku am doom bu tudd élage te réeroon parce que bi muy am cinq boo ko ne noo tudd mu ne élage loolu day yomb mais mm-hmm. xamu turu yaayam ak turu fàtte na ko ku am doom bu am cinq bu tudd élage réer boobaak léegi toll na ci euh, huit ans suma ma juumul wala sept ans nag ñu contacté ñu wax la sa doom fi mu nekk waaye mbaa ko rawale ñooñu mënuñu ko rawale amuñu sa pour seetaan télé. ah kon baax na bu fekkee duñ ko rawale rek baax na. buñ ko rawalee it xam naa famille bi ko fi famille bi ko yor. xanaa loolu buñ ko rawalee dinañ ko génne. loolu dong daal moom moo la ci génne. non buñ ko rawalee dinañ ko génne parce que tamit euh, mënoo rawale xale bi rawale sa bopp rawale sa yaay rawale sa papa rawale ñëpp. dëgg la junj doy na boroom xel. Mhm. duñ ko rawale fenn xanaa doom daf leen jaral génn dem Mali. dama koo foroon rek xamatuma xaw ma ay way juram mi ngi nii jeex na mhm. jarul coono. ah metti na de. falaat bu ba kenn dafa foor day feeñ. metti na de metti na ñu dem xooli ji élément bi dellu si waat àndaat ak mbokk yi ci 88 628 14 wala numéro international bi ngir ngeen rota ci seen xalaat ci li ñu yëkkati woon démb ci réer gu metti gi ban solution lañ ci am waaye itam kaaw xale bi itam anak jaay yàlla bu ñu ciy dimbali wax ñu ne xale bi fii la nekk euh, ay waajuram nag tooguñu moo tax euh, soxna si nga xamante ni moo jëloon xale bi jamono bii ñu toll amul jàmm. ci ay tegtal amul jàmm du ko am te wuñu nag dañuy dolli ah du ko ay mbokkam dañuy dolli de du ko am de kon defal signe def vie nga delloo si xale bi indil ma ko man ma yóbbu ko ci ay mbokkam dara du la ci dikk mhm. yàlla xam na ko ñu dem seetaan élément bi dellu si ko mbokk téléspectateurs yi ma ngi leen di nuyu yéen ñëpp ma leen di nuyu seen ak seen sant sama affaire doom bi moo taxoon ma ñëw fii pour expliquer leen ko pour ku ko gis rek nga dimbali ma nga woote ñu ñëw jël si ko maire bi dafa ñëw ci kër gi fekk maa ngi yor sama doom bu góor bi ak sama ñees bi maire bi ñëw ni dafa réer ma wax ko seen fi ñuy def nit ñi ñu réer ñi boo fa demee dinañ la orienté ba nga xam fi nga jëm mu ne ma garaawul sax foofu dama fa dëkk bees bàyyil ma toog fii su ma toogee fii ba guddi ma ñibbi bu subaa ma ñëwaat ma ne ko waa kon baax na ma jox ko chaise mu toog mu ne ma kii sa doom la ma ne ko waa bii rek nga am ma ne ko waa mu ne moom sax sax dafa rafet kii sama chéri la dee ko toppatoo ma ne ko maa ngi toppatoo kay mu ne ko jigéen ki ku wujj kii moom sama wujj la kii moom bu ko toppatoo moom ñu kaf noonu ree dem ma boot sama doom di di yéeg di wàcc di ko di ko yéexantoo yéeg di wàcc di ko berse ndekete boobu yëpp meer bi mu ngi xool sama doom ji mère bi yéeg ci kaw di añ ma tëral sama doom sama kaw lalu yaay mu yeewu ñu indil ma ko sama rakk bi xanaa bi mu yéegee di ko berse ci la ko mère bi gis daal di koy topp mu tëral ko rek mère bi jël ko dem ma wër fépp gisuma ko jaxasoo woon naa jaxasoo jaxasoo mère bi xale bi ñu doon dool ci kër gi mère bi di ko àtte bi bi ñu bi ñu sëriñ woowee ba ne mère bu am mandarga la xale boobu mu àtte woon moo ne sam papa papa mère bi ma doon àtte fii dafa am mandarga ci kanamam xale boobu nag ci laa doore inspiré woon nag ne kon mair bee jël sama doom. parce que mère bi bu demee ci la xale bi dem. waa gisaatu leen mair bi. gisaatuñu mère bi. te mère bi ku teint marron la. teint mu jam tuñ bi mm-hmm. bu ndaw nii mooy mair yu ndaw yooyu. Mm-hmm. moom la. bi ngeen demee ci ay tegtal wax nañ leen tegtal ñëpp ñoo bokk tur bi ñu wax. waa ban tur la ñu wax. nday Dabalaay la ñu wax. Ndey Dabalaay Diouf waaw Diouf te mère boobu. accueillir nañ ko suñu kër accueillir naa ko bu baax nuyoo nañ jàmm sante lekk na naan na ba pare yóbbaale sama doom dugg sama néegu yaay saagu gan yaa ngi fa. depuis kañ la réeroon. la. jeudi waaw. yow nga nekk la am examen gestion financière. Mhm. waaw mu ñëw rek daal di boot sama doom. roogandi ko dem bi ngeen di laajte ci mbedd mi. Mhm. am na ko ab jaaykat bu leen wax ne gis na maire bi boot doom di dem ak ak euh, xale yi mhm. maire boobu waa mhm. ndax sama doom bi dama àndoon ak moom di dugg ci boutique bi jaaykat yi sax gis nañ ma mhm. ñu ngi ma naan yow xale bi dinañ la sonal de ma nekk xale yi de dañuy bëgg lu nekk ñu leen koy jëndal dem naa trois fois ci boutique bi maa ngi moom di dugg dugg ko ba pare sama maam mooy jaay côté bii mais mair bi boot na ko jël benn kol boot jël beneen kool muur ko dem yoonam xam naa dañ naan rek sëtam la boot Mhm. waaye meer boobu moo yóbbu sama doom wóoru ko woon a yóbbu nag ndax wax naa moom wax ju neex mhm. aka yër naa ko ndax man du ma offensé nit mhm. man quoi qu'il en soit noo mënti mel noo mënti toll man dama respecté ñëpp meer bi munoon na ma bàyyi sama doom munoon na ma ko fa bàyyi rek ndax man benn doom boobu rek la ma yàlla may waaye yàlla moo ma ko mayoon nag waaye moo ko jëlaat waaye bés bu ko soobee bu soobee yàlla teg naa léppam ci loxoom na ma indi waatal sama doom sain et sauf waaw ndax chaque guddi saa bu ma demee bay tëdd sama xeel day nekk ci moom ndax maa moom ñoo daan bokk fu ñu tëdd léegi amatuma ko ma nax amatuma ko ma foowal amatuma ko ma def dara sama doom ci kooku mu nekk kooku lay woowe mama dootuma woowee mama ndax sama doom mama ak papa kese la doon wax léegi déggatuma kenn ku may wax mama déggatuma ko sama doom na ñëw sama doom na ñëw ci muy lu doy waar muy lu mm-hmm. doy waar gis ngeen ko démb lañ ko jëlaat pour rek euh, def ci rappel mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni euh, ñu ngi seetaan ngeen mën a jaare nag euh, ci 88 628 14 13 ni ma ko waxee bépp tegtal boo xamante ni am ngeen ci wala suspe man damay saluer bu baax courage ki nga xamante ni mooy euh, soxna soosu euh, nekkoon Casamance toujours dama koy wax parce que dafa nekk Casamance ki suñuy seet xale bu jigéen magum jëmm bu bokk doomam euh, yor jëkkëram di sëy mu am fit wu toll ni nag xam ni jaamu yàlla dëgg lay def ngir gindi borom këram waaye gindi yaayam ji koy wër taxaw ne xale bi ñëw na Casamance mi ngi Casamance te def nañu semaine ki sama kër ba ñu demee it mu jàppale ñu ba ñu gis ko kon euh, boobu courage mu jël ko jaamu ci yàlla dëgg ba gindi nit euh, boobu courage ku nekk war na koo mën a am waaye itam di wax ne maire bi nga xamante ni moo jël doomu jàmbur boot ko xam nga wax nañ leen ne ndey dabalaay la juuf la lañ leen wax ci ay tegtal dem nañ ci ñetti sëriñ xaw ma ñeent même tour bi la ñuy wax te euh, ci appel bi la ñëwoon donc laay laay jooju mais bi mu ko nee ndax kii sa doom la ndax benn bii rek nga am kooku war naa tiitloo ku nekk mhm. ndax ndax benn bii rek nga am xamoon na ko avant muy ñëw ci kër ga day dof doflu dañuy wax li fi nekk rek ndax benn bi rek nga am lu ko xamal ne ndax benn bi rek nga am te xale yi ci kër gi fees dell wër ko mu mu boot kenn jàpp kenn nga taxaw naa ndax benn bi rek nga am mhm. xamoon na ko avant muy ñëw dafa préparé woon son coup ou am na ko ko préparé le coup bi ba yoon bi di tax du neex nañ dem jël kii ci ligne bi rama allo allo allo voilà ñu ngi koy jéglu bu baax mbokk moomu bu ñu duggee rek nañuy wàññi seen télévision su ko defee ñu mën a ratal seen xalaat euh, ci li nga xamante ni moom la ñuy indi tey jegg euh, euh, si ci kër rek daba rama mm-hmm. xam nga su ma ñëwoon ne la sa boroom kër bi nu mu sant Cissé na nga def soxna si am nga boroom kër mu waa waaw mu ne mbaa santul Cissé xam nga kooku xam na wax nañ ko lu ta sa taamu sant Thiam mm-hmm. y si chose ces choses yoo xamante ne daf lay suspecté loo mm-hmm. jëlal mbokk mi ci ligne bi rama ne ko allo soxna Mbaye waaw maa ngi nuyu di leen sant jërëjëf mm-hmm. kontaan naa trop ci émission bi jërëjëf man damay soog a dugg ci sëy ndeysaan amuguma doom yàlla na la ko yàlla may mais sama xol dafa métti ndeysaan massa lii mosu koo dund mosuma xam ne nit euh, am nañu bon am nañu bon mhm. sama xol bi jeex na dëgg la bilaay wallaay kii bu waxee sama doom sama xol dafa métti dama xam ne xale bi dina jooy du gis yaayam ah, ñëpp a jooy dem di ko mën a toppatoo ndax sa doom yow li nga mën ci moom kenn mënu ko ci moom yooyul xiiful marul de photo bii ngeen gis yooyul xiiful marul kon yaayam mi ngi ko doon toppatoo mhm. esan merci beaucoup maamam aussi démb dama ko jot mu ne ma xale bi demalul yaayam man mi la demal ndax yaayam dafay xëy di jàngi ba guddi jot mu mm-hmm. ñëw mm-hmm. man la ko fay bàyyil maa yendoog moom mm-hmm. kon man mii maa wéet mu yaay ki toogoon di wax ki nga mu maanaam sa maamu xale bi waaw euh, parce que daanaka xale la rek maamu xale bi xale la donc euh, loolu dafa doy waar mais euh, yëf yi daal luus na waaw doy na waar daal doy na waar mm. luus na trop mm. xam nga dañ ne nit ni tey garabam waaye nit it ni tey posanam posanam mm-hmm. kii moom posanam piir la dëgg la te buy làmb noonam bu na na jàpp kenn ni kii noonam ndax ëmb ak wasin dafa metti dafa metti dafa metti rama ëmb ak wasin dafa metti dafa metti mm-hmm. wallaahi soxna Mbaye mun ma sax wax déedéet ndax euh, soxna si mm-hmm. li ko dal dafa metti dafa metti dafa metti waaye nag na gëm yàlla jàpp ne nag incha allah yàlla mën a nit yàlla dana ko nit ba jëlaat doomam tegaat ko ci loxoom yàlla li li tax may gëmbul nelawul li tax may xam ne yàllaa mën a nit neen ngeen mbokk mi ci ligne bi ba noppi ma expliqué lu benn cas bu fi amoon bu yàgg mhm. mbokkalo voilà ñu ngi jégalu bu baax a baax ah. euh, nañuy dugg su ko defee rek euh, wàññi télévision yi jorotal seen xalaat euh, ci sunu cas fu ñu yegg seen rek ñu jël leen gis nga dafa am benn euh, jour benn xale bu góor ñëw fii espagnol rek lay làkk. Mhm. ànd ak benn xale bu góor boo xamante ni. Mhm. moom dina wax olof. mu ne ma kii dafa ñëw di seet yaayam bi mu ñëwee di seet nag nee na dañ ko adopté woon fii yóbbu ko. Mhm. dem na ba nekk mag xam na ne ñi ko adopté woon juruñu ko. mu dem di seeti yaayam mu ñëw nag pour seeti yaayam. bi muy ñëw di seeti yaayam. ña ko adopté nag am nañ mat gu toll ni papier adoption ya mm-hmm. ak kayit ko ko jur ak yëpp joxoon nañ ko ko mm-hmm. wax ko ne ko diw mi mooy sa yaay mooy ñun dañ la adopté woon mm-hmm. mu ñëw nag war a set diw moom yóbbu nañ ko ba Tamba hmm? yóbbu nañ ko fu ne muy seet yaayam bi yàlla dogalee mu ñëw ci kii jour jour bi mu ñëwee boobu dafa fekkoon da doon ñibbi jour boobu la waroon ñibbi mais ñu ne ko pourquoi pas nga dem 2STV yi soxna Mbayang des fois dinay annoncé yooyu mhm. mu ñëw ñu enregistré ko bi ñu koy teg fekk ko Sénégal Espagne la ko fekk ndeysaan mu dellu moom déggul li may wax mhm. mais kayit yi mu indi aussi sama borom kër comme Espagne la nekk boobu mi ngi fi mu traduiral ma yëpp mhm. li ñu wax ci kayit géeg yëpp gis nga bi ñu ko annoncé trente minutes après ci la yàlla feeñal maamam ndeysaan bi jur yaayam mu wax ne yaayam ma nga biir Espagne te mi ngi ñëw di ko seet fii senegal dem Tamba dem fu ne ndekete yaayam mi ngi Espagne gi mu jóge di fa liggéey lu yéeme un la dund ak yaay ji mhm. yaay ji génn àddina oh. un an un yaay ji mhm. gaañu na kooku déggatuma ko léegi moo lay won ne la yàlla dafa mën a nit mhm. te gis nga doom boo ko yoree te juróo ko nga adopté ko dem ak moom bitim réew ne sama jëkkër tubaab la wala man ab tubaab laa dama koy nëbb du sotti du sotti faaw danañ ko ko déy. moo bañ a déy. ndax àdduna bee tëddee noonu rab. deret moo fort. deret ci boppam. Mm, mm. moo fort gis nga bu ñu téye woon xale bii. maara mm. dem si maara dem si ba mu am 30 ans 40 ans. yit du tee mu dellu si ci ndeyam. <laughs> maa la gëm. du tee mu dellu si ci yaayam ji nga xamante ne si moo ko ëmboon. Mm-hmm. wasin ko. Mm-hmm. day dellu si. bu baax te léegi incha lay dellu si. ñaanaluñ ko yàlla loolu. mais day dellusi léegi. yàlla na ko yàlla def. mais nag soxna Mbaye liñ ne affaire bi louche na louche na. louche na ndax nit koo xamante ni si dangaa tase rek ak moom. Hmm. mu ñëw taseeg yow ci buntu kër gi ni la dalu waa lool laay laaj. waaw. nga koy tegtal mu ni la miinuma leen sax bàyyil ma faf toog fii. ndax ndax ndax dama faa toxu yàggul waa Pikine laa. ndax boo demee sax dëkku pikin dafay taxal waa Pikine rek boo demee sax dëkkul Pikine mhm. Mhm. boo demee feneen la jóge feneen la jóge lii lu yàgg la mhm. loo xamante ni sii lu mu préparé bu yàgg la ah yal na yàlla nit nuru na ko de yal na yàlla nit waaye bu yàlla nitee dinañ xam bu baax a baax dina jëbe fuñ ko foogul mbaadu loolu de laa bëggoon a wax <laughs> yal na yàlla nit yàlla baax na muy lu doy waar lu <laughs> doy na waar doy na waar ay ay mbokkam ak ñëpp sonn nañ ci euh, ñu ngi wax ne ñoom ki seen wàllu bopp li lay wan loolu yëpp boo tëddee nag guddi ngay xalaataat. booy def mm-hmm. émission. Mm-hmm. boo tëddee ngay xalaat wax ji. Mm-hmm. parce que wax nañu ne euh, bi mu ko jëlee dafa génn kër gi romb na ay nit. mais wax nañ leen ne def na trois jours biir Dakar. biir yoof soog a génn dem Mbuur am na sax ku ma ne ku la ne xale bi génn na Dakar day wax lu ko neexul ban kër la ko dencoon ci biir Yoff ba mu def fa ñetti fan. looloo jar a laaj. looloo jar a laaj moo tax man laa fee na. allo. allo waaw. waaw soxna si ñu ngi lay ziar. sant yàlla bu baax. Mhm. tur bi naka la. soxna Fatou Ngom. Ngom Demba yow rek la ñuy déglu. waaw kay mhm. man de damaa amoon benn temps. da amoon. damaa amoon benn soxla bu tuuti bu ma leen bëggoon ma ne. waaw. damaa am benn malade boo xam ne dafa nekk faan. Mhm. allo voilà ñu ngi koy jégalu bu baax a baax bu ñëwee ñu jëlaat ko ndeysaan ku nekk nag ak la ñor gis nga mhm. démb soxna si bi mu waxee ne dañ leen a seetal mhm. eh, wax leen ne leen diw dafa réer mhm. waaye ki ko jël diw la tudd xale bi réer di ki ko jël diw la tudd muy turu bi li ma jot ci appel démb <laughs> waxuñu pour lu nit xale bi de mais kooku kooku feeñal tur waaw ah cëp kooku waroon naa am numéro dina am lu bari <laughs> dina am bari <laughs> parce que am na ñu bari ñoo xamante ni réerle nañu uh-huh. mais comme wax nañ leen tur ne kii ko jër uh-huh. moo xam xaalis la ñu réerle moo xam takkaay uh-huh. moo <laughs> moo xam nit la ñu réerle nañ ma baal ñoom ñëpp ku ci nekk da nga ma woo man de soxna soosu laa bëggoon nga jox ma turam su ko defee boo ma joxee numéro mu jox ma numéro waa ji ma ne ko mais man xaw ma numéro waa ji de mu ne ma kon jox ma numéro ñooñu réer le doom ma laaj leen numéro waa ji ma ne ko yéen ñooñu ngeen gis ci télé tey tal ñooñu tal nañ loolu wallaay taluñu leen baal mais dafa doy waar allo <laughs> allo ngi maa ngi nii maa ngi lay dégg chéri salaamaaleykum waaleykum asalaam wa ah déplacé wul tuuti soxna si réseau baa ngi daw. allo allo waaw maa ngi lay dégg. waa xëy waaw. yàlla na ko yàlla ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin maa ngi yaayam dañ ànd. ndeysaan. maa ngi maam. mu yàgg maamam. waaw ku baax la maamam ku la ku baax. ndeysaan wallaay wax nañ ko. su sekk. ki sekk waaw. waaw. yàlla na ko yàlla ñu na sama xol allahumma amin allahumma amin mi ngi compatir ak douleur bi nga xamante ni moom la famille boobu am ca diwaanu Yoff euh, su ma nee nag ban kër lañ ko dencoon ñetti fan comme ñoom seen tegtal yi ñu wax mhm. ne def na ñetti fan biir yoof euh, ku ko dégg nag déggin la laaj parce que Yoff du waa Yoff rek a fa nekk mhm. man mii maa ngi nii Kuure laa jóge mhm. aw fa ndey ndey ku bokk ndey bokk am naa fa ndey yu baax waaye aw ma fa ndey aw ma fa bàyyi aw ma fa lenn mhm. su ma neexoon ma def fa caay-caay pare génn romb leen dem te bu boobaa dañ naan yoof la mhm. keneen ak keneen ma nga fa xeet beneen ak beneen ma nga fa du ma lim xeet yépp waaye nag xam nañ ne yoof léegi rax na mhm. mais daal nañu vigilant nag ñu vigilant tey boole yaa ngi wax état sànq mais yu ci bari rama ñàkk boole moo ko waral dëgg la ñu jël ki ci ligne bi ba noppi ne ko allo allo allo mbokk allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Tambay. doom um booy. ça va. ça va bien. Tambay sama xol fees na trop. ndeysaan ñëpp la seen xol jeex. Tambay ñaari doom yu góor laa am. waaye bu ñu fa mu xaw a sax damay tiit. bu ñu fa wijee. wallaahi la si. fooy dafa xewi de bu ñu foyeeti de. Tambay dëkk bi tas na. tas na. Tambay bu ma la suñu koñ exemple bi ngi toj. wallaay xale bu jigéen bu nga xamante ni ci vingt deux ans lay toll. Mhm. dem jàngi. Mhm. yaayam gunge ko ba ci bopp kañ mu dem jàngi ba tey àggul école. Mhm. nii nii nii yaayam xamul fu mu nekk. kees la loolu xewee. bu hmm? trois loolu kañ la. semaine bële paase yaayam lekkul naanu. moo yey. lekkul naanu xale bu jigéen boo xamante ni dafa rafet macha allah. Oh. mu ci net bi. Oh. Kumba Bala tudd. Kumba Ba waaw mu ngi dinaa jéem a coordonné wu ak ay de ndeysaan dagg na mais xëy na bu fekkee ay parents ñu ngi ñuy dégg itam bu ñu coordonné ak ñun rek euh, su ko defee mhm. ñu mën leen a euh, jàllaleel photo bi pour ku ko mhm. gis wala ku ci mën a defi ñaan lépp a ngi mhm. ci mais ànd ak lu mën a xew daal li mu wax moo am solo mooy dëkk baa ngi toj mi ngi toj xale 22 ans mu ne ay doomam bu ñu foy jee day tiit. dëgg la nañ bàyyi foy. mooy yaay na métti nag parce que xamul tax 10 sur 15. Mhm. nga def ci ñetti néeg ak ñaari pantere akub saal. dëgg la fu xale yi foye fan ci buntu kër gi. bu ñu génnee ñu jël leen yóbbu bu ñu génnee ñu jël leen yóbbu. te xale xale xale mënoo ko njëtt ci biir kër gi. foog mu génn épanouir. Mhm. léeg-léeg mu génn ci buntu kër gi dem jëndi tàngal te ki jël borom 22 ans dafa bàyyi borom 3 ans. xoola bu ñu leen bëggee jël sax école yi ñuy jàngi dañuy jàngi sax ñu ñëw kar leen ci buntu école yi jël leen yóbbu yàlla dongu daal moom moo ñuy musal yàlla dong kese kese kese moo ci des dama xamul lan la nit di doyee doomi jàmbur yéeme na am na ñoo xamante ni si sëy nañ ba xëy ñu suul leen amuñu sax avortement te dañoo gëm yàlla jëla ko ci ligne bi ana gëm yàlla ana gëm mbokk allo allo sant yàlla tey ziar man la soxna Fatou Ngom. Fatou Ngom. waaw dëkk Touba. wax nga dëgg Ngom. waaw waaw damaa amoon sama benn doomu rak sama rak bu gaañu. sama rak. dafa gaañu léegi doom ci moo wér bi. waaw. waaw euh, xaw ma urgence bi xaw ma ca Fann. Hmm? ca Fann Fann lañ ko war a opéré. waaw. te xaw ma si xaw ma nan car cardiologue. allo service cardiologie. waaw mu ngoog ñu war koo opéré nag. waaw. léegi amul waajur nag léegi ma doon testé di testé ba yàlla dogal ñu ne ma foofu lañ ko war a opéré. Mhm. waaye nag ñu ne ma xam ne si na ko mën a opéré. da ngay bàyyi sa numéro rek ku ko dégg bëgg laa jàppale. waaw waaw waaw nag sama numéro xaalis ah, dinaa la ko joxal fii moom mu jox la ko xale bi. waaw xam nga man samay bët dafa neexul man damaa kataraar may dem. Mhm. léegi ma doon sàkku ndimbal nag di sàkku ndimbal rek ku ma dimbale ngir yàlla. xale boobu man la ñu mën ko opéré. waaw. di sàkku ndimbal rek ndax waajur dafa gaañu ko yore maa ngi la mm. yàlla xam doy sant yàlla sant yàlla waaw man sàkku ndimbal rek ku mën baax na joxeel numéro bi jox ko mu jox la numéro bi ku yàlla allo oh. bëggoon nañu xam numéro bi mais nag euh, duñ ko mën a joxe parce que démb rek maa ngi leen koy wax euh, ci émission bi man leen social euh, moom ku def nii ku jaay yàlla bu la dégg te woo la téléphone it euh, mu def ko mais wàllu social à cent pour cent boo xam ne amul tem amul dara mm-hmm. loolu moom du ma ci dugg musuma cee dugg sax parce que damay jël benn cas bu am thème ñu waxtaane thème bi mm-hmm. ba mu yegg euh, bu fekkente ni am na ndimbal ci biir ku ko bëgg a jàppale mu jàppale ko mm-hmm. mais bu fekkente ni nii rek la li fiy nekk ci bunt bi kenn xamul nu mu toll mënuma leen satisfaire ñoom ñëpp te mënuma saa yi ma toogee may leen diw Euh, li këram dafa daanu may leen diw euh, tànkam day metti may leen diw dañ ko war a opeere direction bi ci boppam sax ñoo koy bañ ndax liñ la sant rek mooy def waxtaan kon ci mhm. laay yem te problème yi muy indi yéen mun leen ko xam ñun rek ñoo koy dund donc euh, mu ngi noonu ku ko bëgg a jàppale nga jàppale ko du ñàkk dina duggaat joxe numéro mhm. rama muy lu doy waar ñu delluwaat ci wàllu état mhm. taxawaayam mu ngi def liggéey bu am solo nag parce que dégg naa ci suba ñoom Mamadou Mouhamed Ndiaye di wax ne euh, takk der yi dinañ def seen liggéey. Mhm. dinañu jàpp nit ko ñu war a jàpp ba jël ko jébbal ko justice. Mhm. justice def liggéeyam. Mhm. war a def liggéeyam la cay topp nag. ñoom takk der yi seen yoon nekku ci. parce que li leen war rek mooy jàpp joxe ñu at. jàpp joxe. cas boobu ñu amoon xale boobu ñu eh, jëloon Casamance. te mu demoon xaritu jëkkëram la fa nekkaloon. ba am ak moom doom ñu jàpp xaritu jëkkër ji jàpp ko yàmbaa ma lan. jàppale ko ci yoon loolu mu def. Mhm. génn nañ ko bu yàgg. Hmm? bi ma ko jëkkër ji waxee damaa tiit mbokk alo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. <laughs> Euh, Soxna Mbaye. waaw sama sëriñ ñu ngi lay ziar. man la Talla Dioum. Talla Dioum Talla ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. ñu ngi lay ziar Mbaye. Dioum Samba yow rek la ñuy déglu. di nuyu kooku nga tooga. waaye Talla gëj nañ dégg. waaw waaye Mbaye démb ak tey moom xol yi xol yi métti na. dëgg la dëgg la Dioum euh, ku jur yërëm. wallahi ku jur yërëm waxuma la dara sa doom sax boo xamul fu mu yenn di nga am fu la metti waxuma la ak ñi jël yóbbu sa doom wallahi wallahi jum alxames leen rek laa ko leen rek mhm. moo di na fexe de ci parole laayeen na fexe fexe dem ci porte parole laayeen porte waaw Mamadou Lamine mu mhm. mu lan ko mu wax ko. oh allo. waa Talla waaw. waaw dama ni na fexee dem kër porte parole laa yéen. waaw. bu ko defee mu wax ko mbir mi. waaw. bu ñoom ñu dugal ci seen loxo ci wàllu ñaan ak yooyu yëpp. dinañ ko soxlawaale. dëgg la. ak ci wàllu enquête dégg yooyu yëpp. dëgg la. parce que ñooñu tamit am na lu leen yàlla may. Mamadou lamit maa ko wax bi ci guddi. alhamdulilah ba ca des mooy. Mhm. démb dégg naa ko muy wax dafa war a def benn examen àjjuma. waaw kooku mënul def examen. da ngay raté seen directeur ñu expliqué ko problème bi mu daal di koy pousse ba beneen section moom mu door def examen. Mhm. dëgg la parce que loolu moom mënu ko. loolu mun na nekk ba ca ba ca desit mooy. mooy. ki waxoon ni démb nii xale bi mi ngi toog nii si mu toog. waaw dara. man sama fukki dërëmu yaay moo ma gënal téeméeru kaneen. mu ne xale bi mi ngi. ma ne wax démb. waaw. ki nu waxoon démb sëriñ bi nu waxoon ni demoon nan fa mu ni mi ngi gis xale bi fi mu toog. waaw ci jàmm rappelé nekk moo daax fi mu fi mu fi mu gën a luxe fi mu nekk man sama fukki dërëmu yaay moo ma gënal téeméeru mbayee ak man la waaw kooku na kooku baa ngi moom ba xale moom yëpp réseau baa ngi daw ndeysaan Talla Diom ñu koy gërëm bu baax a baax a baax nekk fii ci lalu urus di ko nuyu di ko ziar mhm. di kontaan ci moom sunu nawle la sunu lépp la waaye di ñu suivre di ñu bàyyi xel waaye itam di ñu dolli xalaat yu am solo donc euh, ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di ziyaar itam ki nga xamante ni euh, moom mooy Xaadim euh, Diop moom dawalkatu Caterpillar la wax dëgg yàlla di taalibe sëñ Abdou Karim Mbacké maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit. Mhm. di kontaan ci moom di ko ziyaar di rafetlu ànd bi ñuy ànd ak ñun keneen a ngi ci ligne bi dañ koy jëlaat mbokkaaloo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Thiam sant yàlla baax alhamdulilah. Thiam man nag maa ngi ootee Angleterre waaye damaa leb tuur bi. danga koo leb. waaw dama koy leb. la leb may naa la ko. <laughs> waaw baax na jërëjëf. ndeysaan yéen sumay mbokk ngeen. dégg la dégg la tey sama mooy suma bés bu njëkk ma oote bi si TV. dëgg la ndeysaan. xale ndeysaan dama xale bi comme man maa wallaay day mel ni yaa ko jur mm-hmm. Mm-hmm. fa metti bu doon foofu suñ ci coppatee kenn dafa metti saaka nga am kenn rek kenn rek wallaay xaw ma lu tax nit ñi bonte saasaay naka ngaa ñëwee ci kër goo xam ne xamuloo ko niñ teral xale bi teral la ba pare nga ne te doomam de moom mm-hmm. xam na fa de ah xam na ko li ma jàpp mooy xam na fa de ak faa xam yoroon du ko laaj nga yow benn bii rek nga am. Hmm, xam néegi xam étage bi xam néeg bi ci suuf. <laughs> ah. ak a yéeme yàlla niit xale bi. Hmm. amiin yaa rabbi. yal na yàlla niit xale bi ci daraja nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ji yal na ko yàlla toroxal. amiin ne àddina yëpp xam ne moo def jëf ju ñaaw yi. ndeysaan. jërëjëf Thiam. jëf jërëjëf jërëjëf. ok dem ba bari. j'espère que dootoo fi géej. <laughs> jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa Angleterre yëpp awa ma nga fa maa ngi koy nuyu waaye itam di nuyu itam uh, ki nga xamante ni mooy Fat Diop sama doom uh, di sœur ci ami ak uh, xadi bu Angleterre maa ngi koy nuyu xadi bu États-Unis moom faatu ma nga foofu ci Angleterre ma ngi koy nuyu bu baax di kontaan ci moom di kontaan ci Aji Savané nekk fële ca Danemark di ko nuyu bu baax di ko ziyaar di ko ñaanal jàmmam yàlla na yàgg Euh, ki nga xamante ni itam mooy Aji Tamba Dieng mi ngi foofu ci Danemark ñoom ñëpp ay Gambien lañu ndey seen bu Dieng yaay ministère gëj ci kër gi lool. waaye yaakaar naa ne mi ngi ci jàmm ndax itam ma ngay def ci Gàmbi liggéey bu am solo bu mel ni bi may def loolu tax jot gi mayeegu ko mais ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax di ko ziar état nañu dimbali nañ ñu jàppale ci kaawu xale bi dañ ñu kalewaate élément bi sax ñu mayaat ci gars yi tuuti mbokk allo allo. waaw noo def ne ne tuuti. maa ngi fi. waaw ci lu gàtt rek lan mooy sa participation. xam nga lii sama participation. waaw. allo Mbaye. waaw. ñun de suñu doom moo réer depuis alxames bi xale bi réeree ba tey. Hmm. ah. waa ñaataat la am. dix huit ans. dix huit ans. waaw. kooku kay dootul xale mbaa mag nga ko lu bari sax. <laughs> <laughs> mooy ki la ki la woo téléphone léegi doon wax ak yow. d'accord mooy fa bi nekk. Thiès Thiès. sonn nañu torop. waaw da ngeen fii ñëw ngeen indi photom ou bien bu ngeen gisee kuy ñëw mu indi photom lekkul naanul man maa ngi dëkk R100. R100 Thiès laa. Mhm. Thiès. waaw yaayam benn bu jigéen boobu rek la yor sonn na. ak ñëw nekk. Euh, da dinaa la jox sama numéro léegi après ngeen woo ma ci. waaw xam naa bu ngeen ma jotulee nag fii ba ngoon parce que moom ba léegi téléphone baa ngi nii di xar. waaw incha allah. merci jërëjëf. léegi léegi lay doon. waaw boo xamante ni mhm. gis nga gis nga mbayang waaw eh, yëf yi dafa metti xale bi waaw bu doon kuy dox wala wëyu wala dara ñu ñu kenn ci sonn waaw waaye xale bi bu yaayam di dem xew sax day ànd ak moom du dem du dikk amul xarit amu àndandoo waaw hmm, yéeme na sonn nañu torop yàlla na ko yàlla nit da ngeen di fexe rek après dinaa joxe numéro bi jëlal bi ak fay wala nga jël sa portable dinaa joxe numéro bi nga noté ko su ko defee rek euh, ñu mën koo euh, jàllale kon ni ñuy jàllalee yëf yi rek ñaan yàlla yàlla nit ko amiin donc euh, li ma leen waxoon rek dañuy daal di kale élément bi xam naa ni temps baa ngi jeex bu fekkente ni xaju fi su ko defee rek mm, li ñuy def mooy non temps bi mi ngi jeex kon élément bi dañ koy bàyyiwaat ba suba waaye daal mbokk yooyu maa ngi leen di ñaan nañ ma wongoon nag à partir de 19 heures ndax heure bi ba fi may waxee ak yéen bi mu ngi sonné am na ñoo xamante ne nag dangay dañ lay seetaan en direct nga joxe numéro bi ñu yaakaar ni mën nañ la jot ci téléphone bi. Mhm. ramaneel kooku allo. allo allo. allo. allo. waaw allo. Mhm. bi na def. waaw na nga def. ñooy sant yàlla bu baax. ça va alhamdulilah alhamdulilah waa yaa ngi en direct. oui parce que vraiment lu soxna di wax vraiment doon na yaram trop trop. Mhm, mhm, mhm. parce que ñoo ngi koy ñaanal yàlla rek vraiment yàlla na ko yàlla saafara moom it mu gis doomam quoi parce que am doom tamit ni mu neexee. Mm. dëgg la. oui parce que lii fekkee li ci am na yërmande rek vraiment saan mm. émission bi war na yaram na daw quoi. ndeysaan. yaram mu war na daw parce que man mii maa ngi koy war a vraiment maa ngi sama Mhm. wante bu ma koy seetaan sama yaram daw na vraiment jooy moom a def tuuti rek vraiment instant yii mënuma wax naa quoi. wallaay. vraiment daw na yaram trop de daw na yàlla ko yàlla def rek vraiment mu gis boobu moom ci vraiment ci jëf ak teranga tamit koy seetaan si tamit vraiment tamit mu war na mën a dem tamit délai bi bàyyi fa doom bi. Mhm. ba ñu am benn problème tamit mu xool diggante moom ak moom ak yàlla quoi. Mhm. wallaay du ma ko woo 2STV sax sama kër laa ko yóbbu parce que 2STV xale yu góor yi mën nañu koo seen muy teg xale wala dara. mais wallahi azim sama kër laa koy yóbbu jël xale bi mhm. delloo ko ay mbokkam ñaan leen nitam ba ñu bàyyi lépp ñu sedd te bu ma ko mhm. waxee incha allah danañ ko def incha allah doom rek a leen soxal mhm. leneen soxalu leen nañ jox seen doom rek ñoo koy ñaanal bu baax leen ñaanal tamit vraiment yàlla na émission bi jëm ci kanam a kanam amiin yaa rabbi amiin amiin ok merci parce que mosuma vraiment ñu ngi jégalu si wante tey moom wax dëgg yàlla moom ma ne foo jaar ma dugg ñëpp la seen yaram daw ok ok maa ngi wax ci bopp jërëjëf merci beaucoup jërëjëf ñëpp la seen yaram daw ba mu des ki nga xamante ni mooy jeeg bu ni léegi magum jëm romb 60 ans jëm 70 dugg ci biir kër ñu defal la teraanga nga jël doomi jàmbur ne ko wàkk boot jël kool muur ci bopp ba romb nit ñay wax wa ngi daw dem yóbbu ko joxe ko ndax xam naa ne moom talatoo yor doom mhm. euh, yaakaar naa ne buñ ne ñëpp seen yaram daw na it mhm. yow moo mu def loolu sa yaram dawul Mm-hmm. ndax mag du yàlla waaye yàgg naa ak yàlla moom laa yàgg dégg sama yaay di ko wax kon boo yàggee ak yàlla am na ki tooxi doona yoo xamante ne buñ la ci naree dugal sax nga xam ne daanaka benn tànk baa nga yomal xiyaam benn tànk baa ngi fii mm-hmm. kon gisatoo ci àddina lu la koy jaral mm-hmm. donc nañu delloo siwaat xel yi di rafet nu ñuy doxale tey am sago gis nga tegal la fii taabal ji ba mu fees dell xaalis mu leer na ne xaalis bi mën na laa indil musiba amal ngor gu tol ni nga ànd ak dal xam ni ki bàyyi woon ngay dund ba jamono bii nga tollu ba ngay gis xaalis bi mhm. kooku du la bàyyi ba keroog buuf tawal di jot mhm. ko donc xaalis boobu war laa mën a yóbbu ci war a mën a teg sa moroom naqar mhm. war a mën a faat nit ba kenam war a mën a sàcc nit wala nga sàcc doomi jàmbur dem def ko nii jox ma sama doom jox ma sama doom ji yomal xiyaamati akbar buñ jàkkaarloo suñu borom ci ña gëm dekki nag ñàkk waaye waxuma ña gëm dekki ñàkk gëm dañoo gëmul suñu borom ñu jëlaat kii ci ligne bi rama ba noppi soog a ñëw ci loolu allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Mbaye. soxna si ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay yàlla boole nangu ziar. Mhm. waaw maa ngi lay woowee fii Louga. Louga. waaw mais xool yëpp dañu jeex. waa waaw man weekend bi dama am lu wàññeeku ku mel ni ku bette ku yéene mais tëmbal ko fa dolli ko waat encore. ndeysaan. dama doon jooy yëpp mais tey jooyaat na encore. masa masa parce que gaañu bi suñu borom bi yóbbu moo gën a neex sax boobu yi bett yëpp moo ko daanee bii. Mhm. Mhm. Mm-hmm. mais yàlla ki mën a niit yàlla na niit xale bi. allahumma amiin mais xoolu jigéen ñëpp tooy nañ. wallaahi ñëpp ñëpp a tiit. ñëpp jooy nañ mbay. ñëpp jooy nañ ñëpp tiit nañu. yow nag ñu ngi rafetlu sa taxawaay ci si àdduna bi yëpp. ndeysaan jërëjëf dana bur yàlla fay la. amiin amiin ñu bokk sant laa fii ci Louga. ndeysaan sama xool dafa jeex ndax xam nga dama ñàkk ñàkk gu gaaw gu métti mais ma koy jooy pareeguma mais bi ma gisee lii encore dama dellu suñu woro. massa massa ndax booba métti na mais moo ma gënal bi wallahi sunu borom bu ko yóbbuwoon kenn du def lii. déedéet. Mm-hmm. Mm, yàlla noppi na. nit neeg na de. doomu aadama lu metti doomu aadama rek moom moo moo koy teg. ndeysaan. waaw mais suñu borom li mu lay teg ko sant moo ko def. dëgg la te doo ko <laughs> waaw doomu aadama comme yow teg la dafa métti. dëgg la walaay métti na xool yëpp jeex na kenn mënul wax ma maa ngi di ñu ngi gërëm di la sant yow itam. jërëjëf jërëjëf. merci beaucoup seen yàlla ñu bokk ko seen ñaan ak seen taxawaay am na solo moo tax saa bu ñu xëyee dañuy am courage ñëw toog di jàkkaarloog yéen wax nañ leen ko def nañu dix ans waaye nag ñoo ki yéen rek di ànd ak yéen ba keroog yàlla di yemale opportunité bi pour ñu wax ci télévision mhm. euh, yàlla nag mën na koo guddal mën na koo yàggal ndax bu ñu nee kër gi rek liñ ci war a wax du jeex ndax lu ne mhm. ngi ci biir mhm. waaye nag euh, de fois damay faral di wax naan yàlla ku ne néegul da nga wax lu nekkul oh, ndax yàllaa lay fekk nga yor benn doom mu ne ko coppet mu ne ko coppet yóbbu waaye nag di nga ko ziyaare ji fa mu nekk di nga dem itam euh, di ko ñaanal mais mhm. doo dem mu ko ci soxna mbay ak ne ko mhm. demandeel ma yàlla pourquoi mu jël sama benn doom sama benn doom waaye nag sa moroomu doom aadama bu attanee teg la lu metti lii mhm. nga toog di yuuxu di jooy euh, y'a problème nañu fóotaat xol yi may ñaan rek soxna si wala kii yor xale bi nañu woo ci 77 534 91 85 77 534 91 85 su ko defee ñu xool ni ñuy def ba delloo jiwaat xale bi ci sutura wallahi azim ci sutura rek rama jëlal kooku ci ligne bi. ok allo allo. tey moom sa xol a jeex ba nangu woo wax. billaahi allo. allo waaw. na bokk na Mbayang. waaw. santo Thiam. Eh, sant wa. Eh, ñëwee ma koy lekk ndax dama ci am lu ma métti. wallaay ndeysaan mbaa danga may wax fu mu nekk rek. waaw Kaolack la. ndeysaan Kaolack ngay wootee waaye ñu ngi ñaanal ñi xale bi. ndeysaan mm-hmm. da ngay wàññi télé bi ñu wax ci téléphone bi rek. yàlla mi mën yàlla mi mën a yàlla na xale bi. allahumma amiin yaa booy. ñu ngi koy ñaan ñun ñëpp am nañu lu métti ndax ñun ñëpp ay jaboot lañu. ndeysaan. waaye damay ragal ne ndaw soosu de yàlla bu mu jàngal bon. yàlla bu mu ñu jàngal bon. jàngal bon. ndax dootuñu ko jàpp. dootu mhm. wóolu kenn damaa bëgg a toog nga teral ko jox ko añ jox ko boisson jox ko fruit mu ngi noonu dama ne ndax ñun doy nañu wóolu kenn ah kenn wóolootul kenn de dëgg la de ndax léegi da ngay toog ci sa kër nit ñëw ne la may ma ma jàpp ko mu jàpp dugal ci sa saal saal te léegi yu mel nii tegal ci ëtt ba waaye dootoo ko wóolu man wóolootuma sa ëtt bi tegal ca ëtt ba wala ca buntu kër ga ëtt ba sax wóolootoo kenn nga aal ko ba sax mu dem ca jàkka ji kon ñëpp am na ñuy jàkkale yi Mm-hmm. damay jaay cuuraay bu mu dugg sama kër. su mm. ne may ma ma jàpp laloo ko ci mbedd ma ndax lii moo tax. ah dëgg la de. amatuma confiance waaye xale bi métti nañu lool lool lool lool. wallaahi. ñu mm-hmm. ñaanal yàlla ñu ngi koro yàlla yaayam. Mm-hmm. yal na yàlla lii. amiin ndeysaan amiin. na xale ci ay loxoom. amiin amiin amiin waaye. yàlla na def. ndeysaan lañ leen gis ko man maa la maa waaye démb ba tey ci ay jooy lañ nekk. wallaahi ñëpp ñëpp maa ngi baalu ñëpp àq. maa ngi baalu ñëpp àq nga tegal ko ci télé bi yàlla boo ko rëcc. ndeysaan allahumma amiin. yàlla boo ko rëcc. amiin amiin ñëw ba teel ko ci sa loxo yow. waay waay waay waay amiin waay amiin waay. amiin waay barke yàlla démb ba léegi damaa woo ndeysaan ndeysaan yal na ko yàlla def jaar amin allahumma amin jërëjëf merci beaucoup maa ngi doon wootee fii Kaolack Medina Baye maa ngi nuyu waa Kaolack waa Medina bàyyi yëpp voilà sama xel la dem ci Seyda mhm. Ndeye Amy Niass ma nga foofu ci diwaanu Mauritanie ak njaboot gi di ñu seetaan maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko wax nag seydaa bëgg naa ñu déggante lool ndax numéro bi ma yor moom dama la ciy woo ba sonn duma la jot kon seydaan Ndeye ami euh, ñu ngi koy nuyu bu baax ma nga foofu ci diwaanu Mauritanie di mhm. jigéen ju baax wax dëgg yàlla ju sell ju yiw Euh, dañuy jàngal nit ñi bon ah kay bu mhm. nit ñi bonul it dinañ bon banaatu boo bonulee di nga bon bonaatu de kenn wóolootu kenn soxna man man man gis nga sama sama sœur bi mi ngi naa man maa ngi xalaat sax ci appel bi ñi fa duggoon ci kër ga ci suba gi am na ko fa dugg dama bëgg añ ñu may ko mu añ guddi gi am na ñu fa dugg dama bëgg reer ñu may leen ñu reer mhm. sama sœur bi na man ñii nag kon kon jar nañoo seetlu de ma ne ko mais bien sûr ba ci kuy jaay promotion ñëw ba sama chambre ko accouché alors maman dama ma ne ko wàccee rideau parce que yabaate weesuwul ngay jaay promotion. ba ci biir jour ca buntu ba. ngay dugg sama biir même jour appel dañuy dugg ba léegi nag léegi xoolal fu wànnent di wére. moo ma jaaxal. fan la wànnent di wére moo ma jaaxal. état ne vigilant ah man man man jaaxle naa trop. état ne ah. parce que léegi ku fi gis jëye nga fajal sa bopp état ne la nuus yow bàyyi ko def. musiba waaw état ne vigilant. xamuñu ko tooñ de ku fayu la xam yi parce que nag suñu xale yaa ngi jeex. Mhm. am na ko ma ne nag démb boo ko seetloo bu ñu jubee élection yaay yëpp seen doom yi laytaay la ñuy mbootu ma la ñuy takk ci bee tànk takk bii tànk ci doom yi seen fit yaa nga ne ñoŋ parce que seen fit yaa ngi seen diggi bopp yi ku sa doom jàngi boo yéexee loolu nag adresse bu bon la waxuma ko de nit ñi ñoo ko wax ne élection bu jubsee daal réer gi bari nangam sàngam kenn dootu gis kenn waxuñu ko waaye daal tombe moo waral ay gaaf mhm. euh, te nguur jaru ko wallaay jaru ko mi ngi ci lu ne ah. buntu bu ne dinañ ko laal ci mbir yi. parce que bari na wallaay jaru ko Rama xam naa ni temps bi mi ngi jeex. dañuy daal di delluwaat rek euh, di la jaale. Mm-hmm. di jaale ki nga xamante ni moom mooy maman Gentil. Mm-hmm. ak buur géwal ñoom Nasira. Nasira ak. Euh, Adama Thiam troupe déggoo yëpp. waaw mm-hmm. ñu ngi leen di jaale. ci seen mbokk moom mu gis ngeen ko mu ngi noonu. maam Nguer ndeysaan maam Nguer pour nit ñi xàmmee ko. wallaay euh, ndeysaan mu joué théâtre yu bari ak. muy euh, ko yaru nii mu nii nii mu def ci photo bi noonu la mel noonu la yaroo. am yar am teggin ndeysaan. tey nee na leen dafay niroog sama sœur lool. wallaahi sama yaay bu ko gisee wala sama famille dinañ ko xam. Mhm. ne dafa niroog sama sœur boobu de ndey ci am ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. njabootam gi mu fi bàyyi rawatina sama taa bu jigéen bi nga xamante ni euh, muuma laa ko tuddee mm-hmm. euh, bi muy gaañu bi yaayam cinq bi muy bi yaayam di gaañu booba cinq ans la am ma yor ko ci sama kër mm-hmm. mu déggal ma respecté ma mm-hmm. am kër am xam kër am sutura bi mu demee ba léegi laa dof la sama kër yàqu barke rasulullaay dafa sëyi ca sama koñ la sëy damay taxaw sama buntu kër seen paranteeram xam nga ne loolu jikkoom ak ko may de wallaahi ndax du sama jikko man nag mm-hmm. bien que nag bi mu amee juróomi at laa ko yor waaye jëlu sama jikko ndax man damaa tàng dëgg la te moo ko may boppam ba ma sëy si ca koñ ba mhm. ñu mayee ko ca koñ ba mu sëy mhm. damay taxaw sama buntu kër seen paranteeram wax nga ma ko loolu jikkoom moo ko may wax nga ma ko keroog ba ñuy dem reportage ci ngor yàlla ma koy wax yàlla na ko yàlla jàmmal amin yaa rabbi yàlla defal ko sutura amin yaayam yàlla na ko dëddoo jàmm maam ngeer itam ñuy ñaan euh, yàlla na ko yàlla def fa mu jëm gënal ko fi mu bàyyi ko en tout cas tur bi yëpp ñu ngi leen di jaale rama ah, am na am naa ci yaakaar sax ndax euh, dañ ni mhm. bu fekkee da fonk waxtu yu juróom mhm. sellal lépp mhm. macha allah sëy ci farata yàlla ak sunna Muhammad nga faatu sa borom kër jébbal la suñu borom ñaanal la taxaw ci mbooloo mi wax loo xamante ni ci moom yàlla bu ko cat jiitu allahumma amin yàlla bu ko cat jiitu allahumma amin ku doon jooy sax dangay noppi ndax la jëkkëram wax ndeysaan yàlla na ko dëddoo jàmm maa ngi koy jaale bu baax a baax moom boroom këram ndeysaan yàlla na ko dëddoo jàmm waaye doomam jiit yàlla na ci suñu borom teg loxo amin amin amin ci barke salaatul faatiha amin amin Diop di sant ñëpp mhm. di gërëm ñëpp di la sant bu baax a baax a baax nee naa jii damaa sax tawat ku xool xam ne dama tawat wallaahi ni nga seetee waaye appel bi ak euh, mhm. kazu rajab gi mhm. moo téyewoon suñu rubrique boobu di luy jaay ci jabar mais incha su pët nañ ci dellu si waat ndax koor gaa ngi ñëw te ñëpp bëggal nañu fësal seen i produit incha ko wutal itam benn bande annonce boo xamante ni dafa laaj organisation pour nit ñi xam fan la jaar ba mën a bokk ci mhm. yëf mais pour 77. 801 41 56. 801. 41 56. voilà à 100000 francs ñu fekk la fa nga nekk filmer sa boutique dugal ko ci biir émission bi. incha allah dugal numéro téléphone yi yëpp yaakaar naa ni loolu xéewal mënu koo weesu. defal la lu baax waaw neex neex na ba ba romb neex. <laughs> macha allah may sant ñëpp di gërëm ñëpp. di gërëm nag madame Balde nee nga moo ma ñawal rob bu baax bi. te dina la ci ñawal dinaa ci ñawal yooyu lay def nekk ci Petit Mbao rek tubaar fa kàlla macha allah. ndeysaan. Euh, ciseau damm ci loxo bi. jërëjëf <laughs> muy lu am solo kon waa secteur boobu la parce que xam nga dama jaw itam mi ngi dëkk Kër Massar waaye mi ngi ñëwee maris mhm. euh, du ma ko wax dara dama koy bàyyi ak yàlla moom daba mhm. euh, ndax dama naqaree ñawal ndax man dënd ba bu paccalee ma delloo la ko bu loxo yi gàttee ma delloo la ko mhm. bu yëf yi amul kii affaire grande dame waaw boo ma daami naa nag moom ñàkk nga ma <laughs> daami <laughs> bëggoo daa mel mu ko ci kër àddina mas nga ma gis ma solo ko <laughs> rarement parce que damaa bëgg yu féex firi ma romb nit ñeeg samay cerax waa ko dem sama yoon <laughs> loolu moo tax te daamina bi day xaw a diis day xaw moo tax te dabal loolu la xam jaw fara maa ngi koy ñaanal bu baax ma dem bi tey euh, di ñaan rek yàlla na ko yàlla defal jàmm numéro téléphone am 77 mm. la 200 363 21 21 77 363 21 21 mooy def yu baax yi maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant Euh, Daba Diaw madame bi euh, tey gërëm képp koo xamante ni àndoon nga ak ñun di wax ne rek euh, xale bi ku ci xam dara te bëgg a jaamu yàlla woo ma ndànk ne ma soxna Mbayang xale baa ngi ñu denc ci kër gi ci 77 534 91 85 bu ma ci feeñ wala soxna si ci boppam ndeem xam na ni jege na yàlla wala ka doom ji te xam ne borom karaw gu ñuul la ñàkkul dara na ma woo ba ma ñëw ne ma ay léewenkat doom laa bëggoon moo tax ma def lii du ma ñëw de na ma woo ñu joxante rendez fenn sama kër doom laa bëggoon moo tax ma def lii am xale baa ngi nii dellool ma ko ndànk ma ne ko wàcc fi sa numéro téléphone wala wàcc fi foo xamante ni wala ma jox ko sax ne ko bu wàcc bi adresse bul wàcc téléphone bul wàcc dara mais période sangam woo ma dinaa jël doom jox la popo pouponnière yaa ngi Mbour pouponnière yaa ngi Dakar enfant de la rue ku ci bëgg a adopté adopteel mais xale boobu tudd El Hadj te réeroon ay mbokkam il y a de cela sept à huit ans xale bi am na treize ans léegi bi muy réer mi ngi am cinq ans na tur yaayam turu papaam ku ci bëgg dara na ma wax mbokk yi jàmm ak jàmm ba suba ñu dellu si siwaat ci kàttanu yàlla sangomar dàq naa ko euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fi amaanillah jaa ngeen jëf